dans le cadre d'une journée yoo xamante ne pour sensibilisation ak euh, dépigmentation bon léegi démb on a fait une séance pour euh, dañoo def benn séance pour expliquer nit ñi lan mooy importance su ak lan mooy rôle am tey jii nii nag dañoo ñëwoon ci wax leen lan mooy produit dépigmentant yi ak euh, yan mooy seen conséquence léegi nag concernant nag li koy waral li koy waral bëri na am na ñoo xamante ne mën nañ la dem ba neex seen jëkkër moo tax ñuy xeesal am na ñoo xamante ne dañoo complexé am na ñoo xamante ne nag dañoo bëgg a nekk ñu xees parce que ko yi daal bëri na euh, buñ ko naree euh, wax ça dépend nit ñi nag waaw. waaw feebar yi ko ci mën a dal bëri na tey jii nii boo ci xoolee rek mooy cere bi ngeen ñuy gis lu bëri ci jigéen ñi beneen bi mooy kii di utiliser corticoïde bi à longue durée corticoïde bi muy utiliser mën na ko jox hypercorticisme mën na koo jox tension mën na koo jox diabète yooyu yëpp tamit tey jii nii mën na koo am ndax xeesal bi muy def kese kese. bon boo seetloo tamit dañoo xool nag xam nga suñu dëkkuwaay yi tamit ak suñu environnement yi am na ñoo xamante ne tamit amuñu moyens yi. léegi boo déggee ñu ne côté économique bi maanaam xeesal du loo xamante ni dafa gratuit et daal ça demande des moyens financiers nit kii di xeesal day jënd produit yi da koy jënd maanaam moo tax ñu ne complication yi daa am ay conséquence économiques ndax nit kii di xeesal day jënd produit produit yooyu noonu nag am amaan na am na fu nga ko mën a def feneen fu foofu noonu moo tax ñu boole ko ci conséquences yi li ci gën li ci gën mooy nit ki bañ cee dugg te buñ mënee sensibiliser nit ñi koy def ñu bàyyi ko mooy li ak ñi nga xam ne ni ñu ngi koy waaj a def loolu daal mooy objectif bi ñu sensibiliser jigéen ñi góor ñi ak ñëpp ni leen ni nit ki ni la yàlla bindee dara gënu ko.